man maa ngi tudd Amadou Sow euh, nekk parti PASTEF les Patriotes je euh, euh, chef de rédaction parti chef de rédaction de l'école du parti suis aussi coordonnateur adjoint du pôle formation et débat bon xam nga histoire 94 milliards je crois que sénégalais yi suivre nañ ko commencé euh, si euh, euh, depuis bien avant même campagne électorale bi xam ngeen ne Ousmane Sonko waxoon na fi que amna 94 milliards yu ñuy luubal donc ba mu tudd directeur impôt et domaine mooy Mamadou mamou Diallo donc moment yooyu noonu pratiquement toog nañu lu yàgg kenn waxu ci dara. Euh, mu jël euh, plainte dem déposer ko ci procureur au mois de d'avril en même temps aussi demoon na ci OFNAC donc xam nañ ne OFNAC mooy saytu lepp lu jëm ci walu corruption euh, donc dem na ci OFNAC dem ci procureur déposer fofu plainte donc di xaar pour justice yoon def liggéeyam parce que procureur mom normalement bo déposer plainte surtout lu jëm si somme bu toll ñu 94 milliards ku toll ni Sonko nek responsable nek député à l'Assemblée nationale que chef de parti sous normalement sous waxé wax même sax même sax ne serait-ce que parce que wax na publiquement rek donc procureur si c'est mom mo waron juk avant sa plainte bi mais pour ñu déposer plainte euh, waxul dara euh, jekki jekki euh, bi ñu démé obélisque euh, bi passé ni yagul noonu moy veille campagne électorale bi c'était le 19 janvier def suñu meeting mu réitéré wat ko né euh boobu bobu am amna 43 milliards yi nga xamante décaissé nañ ko ba paré mën na wax sax ci ban banque la nekk donc xam nga kooku noonu euh, defe naa euh, li mu waroon def def nako té en même temps aussi ku la ne dem naa si justice déposé na plainte donc euh jarul won wax ju wax ju goud quoi donc procureur mo waroon def enquête euh té su fekkee né justice jogna ci si ñun en tout cas au niveau de de de notre parti de notre coalition lolu rek lañ doon xaar maintenant su ñuy commission parlementaire. Euh, xaar ba léegi ba nit ki nekk ci campagne électorale euh, depuis boobu ba léegi defuñu commission euh, parlementaire xam nga lu ma lay wax ni depuis le mois d'avril donc defuñu commission parlementaire jékki-jékki xaar ba période bii nii si si si si bi nga xam nit ki mu ci campagne électorale en pleine campagne électorale ñuy def ay réunion ak yu mel noonu assemblée nationale di naan ay commission parlementaire la ñuy def.

gis nañ histoire Nafi Ngom Keïta niñ ko niñ ko démettre si si si si si fonction euh bon gis nañu euh, des rapports qui ont épinglé des gens yi nga xamantene xam nañ leen ñëpp xam nañ leen mais ñooñu ils ne sont pas inquiétés euh, donc euh, assemblée jéemul def commission euh, commission parlementaire les suñ togué ba moment bi ñuy naan ay commission parlementaire donc lolu sénégalais yépp xam nañ lan la tekki donc lolu motax euh, ñun considéré wuñ ko comme quelque chose de sérieux